arbitre match Naples Barça bi xam naa ne foo ko catalan yi fekk aw yetu Dakar dana ko sàppi wala ay yetu kel yoo xam ni yu mat sëkk lay doon ndax danoo jàpp ni dañ leen a xeex ci bitu Victor Osimhen merengue yi bàyyi leen photo yi ngeen di jël di ko dugal di ma ko yónnee gis nga merengue yi nee nañ Barcelone Naples dóor nañ ko aller retour bul ñu teg gàcce xam naa dañuy kaf di ree ma continuer nag match bi Barcelone def mucc gu mucc ayib ci vidéo bu njëkk bi ngeen xam ne wax dëgg yàlla tey Barcelone du ko waaye di wax football na match boo xam ni ah, digne de victoire la digne de boo xam ni ah, daanaka ci match yi jot a moo ci gën moo tax kii di Lewandowski moom lan fal mu nekk footballkat bi nga xam ni bin coytee ñaar fukki nit ak ñaar ñi nekkoon ci terrain bi moom lañ ca sippi moo ca gën a xarañ xarañ téem nag ñu bari soxla nañ ko ci Barcelone ndax fi mu toll wax dëgg yàlla fii lañ ko soxlaa te lax ku ko doon jënd Ligue des champions bokk na ci moom mii di Lewandowski maanaam Lewandowski moom moomee ñu ñaanal ko jàmm bu baax a baax waaye arajo nag bi match bi jeexee ci ñax mu tooy mi gone espagnol yi nga xam ne ñoo amoon ex exclusivité di def match ba direct ban ko laajee ci match bi jàpp na ni match nil boo xam ni bu ñu football la wax dëgg yàlla montré li nga xam ne daanaka mooy sunu visage ak équipe bi nga xam ni mooy bu Barcelone ak sunuy réalité ci ligue terrain bi loolee ànd naa caag waaye fekk na nag équipe bi ñu naan Real Madrid mooy équipe seul bu Espagne bi nga xam ne am na victoire ci Ligue des Champions bi fii ñu toll ci match yi nga xam ni euh, ñu ngi ko jot a football ci maanaam semaine bi ak bii ñu toll ci Ligue des Champions loole nag ñu jàpp ni wax dëgg yàlla suprématie bi nga xam ni mi ngi koy am ci wàllu Ligue des Champions loolee lay jëmal waaye nag des na ay match retour aller boo gis am na retour retour ba tamit dana dikk aller retour la euh, Porto euh, faj na équipe bi la di Arsenal si lui maanaam cib dëkkam la ko jàpp dóor ko benn bal ci dara kon Arsenal daanaka wax dëgg yàlla fi mu toll nii dese na ko lu baree bari pour mu génn ca beneen wàll ba lu baree bari nag day fekk boo ñu demee ca Angleterre mu fexe jàpp équipe bii di Porto dóor ko 2-0 wala 2-1 wala trois en lépp lu mu ci mën di doon na ko rawee lu toll ci ñaari poñ fi mu toll nii Porto moo nekk ci kaw équipe bile di Arsenal.